bu ñu nekkee ci wàccaayu tabaski xar yi nga xam ne ni war nañoo ñëw ci capitale bu Sénégal tax ba dawalkat mécanicien ak yi yeneen liggéeykat yi nekk ci parking bu stade Léopold Sédar Senghor am gàllankoor bu rëy ci seen i liggéey. tabaski des un mois et quelque nag ngeen ne trois jours foofu ngeen di liggéey jóge leen fa loolu bokk na si loo xam ne ñun mett na ñu trop tout le temps foo toog ñu yëkkati la foo toog ñu yëkkati la foo ñu yëkkati la loo bokk na si ñun sëfooru camion su lu li nga xam ne tey. amuñu fu ñu ko jooyee parce que ay jeunes lañ ay ndaw lañ gis nga ñi fi nekk yëpp yi ngay gis yëpp am nañ ay jabar ak i doom bàyyi leen dëkk ba ñoo fi daan suñu doole ñun agressé wuñ jëluñu alalu jàmbur ménagé wuñ kenn ñun li nañ xam wàcc xëy nii 6 heures du matin fi la ñuy fekk ñu xëy nekk suñu liggéey 20 wala 22 heures ñu wàcc dem suñu kër sonal luñ kenn nag ñu jox leen àpp ngir ñu jóge ci yooyu la bërëb yu ñu war a àll jaaykatu xar ya ba tax na yii la liggéeykat xamatuñu ana nan la ñuy def ak seen i liggéey ñun ñoo ngi ñu indi 98 fii ci Nord Foire ci kàmb gi. 98 ba 2023 ñu xëy un bon jour ñëw nañu dans 5 jours da ngeen fiy jógee. bi ñëwee nag si la yàlla dogal na ñu nekk fii si stade bi boobaak léegi presque de 6 mois ñu nekk fi di liggéey pour Kothiat pour am lu ñu jox si njaboot. ñun xeexuñu xulawuñ ñuy ñaax nguur gi ngir mu wuti leen beneen i bërëb bi nga xam ne ni ñu fa mën a amal seen liggéey. ndax heure bu événement ñëwee ñun la jógal ba ñu jóg mais nañu wutal place boo xam ne une bonne fo la. nga xam ne dootuñu fa jógati. li ñu bëgg nag mooy bu ñu jëlee fii ñu jox ñu feneen fu ñu nekk ñun loolu rek la ñu kaas du leneen. camion mu xëjul fenn fu ñu tëj espace boppam xëjul si ay nekk si buntu kër déedéet ay tasaaroo ku nekk jëm fii déedéet ñun dañoo war a am suñu terrain waxoon tey jii ñun ñoo ko moom suñu bopp. ay d'abord moom ba fi xaar yi doon nekk fu ñu ko joxoon foofu baax na ay d'abord am suñu wax sax baax na. gannaaw bi nga xam ne ni àpp bi ñu leen joxoon jot na yii la liggéeykat am tiitaange lool si seen ëllëg